donc ñu leen di ñaanal jàmm bëgg incha ñu qualifié quoi xam ne ñu ngi seen ginnaaw tey incha allah. mais léegi ñu def keroog sa dal na tey. waaw non la demee gars leen fekk rek mooy loolu moo ñu teg ñu benn mais instant comme dañu ñëw nii on est à domicile la du la may dara dañuy dañuy suba dañuy ruube tey ñaar yëpp lay